presse. ñu di ci ànd ak El Hadj eh, adduna bu tukki la wala yaakaar gu tas dire eh. moo ne Macky Sall day juróom-ñaari weer kese la dafa baxle déedéet Momar Ndaw njiital asko seen ne gouvernement bii lañ doon wax daal mooy yoonu yokkute mooy yoonu yokk gars daal ñu ngi yokk rek yéene gi ne ginnaaw gaz ba ak essence ba wala boo carburant ba waaw fi nekk nii kon diwlin ba yokku na la le populaire ne ginnaaw diwlin joo jee boole ca soble jax boole ca laaj jax boole ca pompiteer jax bi nga xam ne nag dañ ne woon dañ koy lall ci salaire ya ba ñëpp ne alhamdulilahi rabbil alamin ah wàllum na xaatee nga ca ginnaaw de ndax njëg yi yokk nañu ko ndaw si ci réew mi quotidien ne ñin daal fi mu nekk ni le njaqare tiis koo xam ni kon moo ñu topp ci xar yi maar day taali waxuma la sax maanaam dañ ko gisul waaye seer goo xam ni kon seer na ko jéggi na dayo boo ca toftalee nag fi mu nekk nii diwlin yi nga xam ni kon yokk nañu ko ak soble si yi nga xam ni maanaam yokk tawut ne diwlin joo jee ñu yokk ah su ne liggéey diwlin joo jee moo jekki-jekki yokk ko ngir daal wàllum bénéfice dégg te nguur gi yoonu yokkute kon la doon wax ci biir campagne bi yëpp wax waxeet nag la def kon ci ay diggée yoo xam ne doon na ko def waa asku sàllee nag danañu wàccee kon nit dee nguur gi gaawul ay matukaay yëpp ci yokk yi nga xam ne kon ñu ngi koy nimiku ci dund gi le yokk ko yokkaat yokk ko yokkaat ba kon ñoom lañ fal nii war nañoo taxaw nag jël kon seen matukaay ci jafe-jafe yi nga xam ne di demande sociale bi maa la wax lii parce que waa ji yi nga xam ne daal moom la ñu fal ak ñi nga xam ne ñoo ko fal nii diggante bi ra taxatu neexatul neexatul gi ne yokk gi nga xam ne nag maanaam ni mi ko nañ ko ca njëg ya waaw ab kóolu teef koo xam ni kon day wàññeeku lañ tey ni kese hausse des prix de la confiance barke rasulaay te nag sax dadul jamono ji lañ war yokk kon dund gi diggante korite tijjite l'école ak tabaski bi ma ne adadax Macky Sall ka dañu koo fal ngir mu fajal ñu maanaam lii mitti jàngoro yi maa la wax lii Ansoumana Dampha fa mag authentique ci tribune yéen kaay ne Macky Sall daal daa war a wàccoo ak ay diggéem di ay engagement am Omar Faye ci direct info ne defoon daal ci jamonoy inondation yi maanaam jàppale ñi nga xam ne kon ay sinistré lañ ndox mi ci boppam kon da leen a loroon téléthon waaw loolee kon moom la ñu war a defal nag sénégalais yi nga xam ne ne fi mu nekk nii tabaski bi kon sut na leen lees njiita leeral askan wa yamu ca nee na li ma yéem jommal ma dëgg mooy téeméer boo jël ci sénégalais yi juróom kese ah ñoom la ñuy gis kon ci dara li ñuy waxaale xaar dégg nga njëkk yaa ngi nii saay bu ñu xëyee kon muy gën di yéeg réew mi ñàkk xaalis mbir mi takka témbee c'est sa reste financière la ñu ni mi ko ab maral goo xam ne ci wàllum xaalis kon jéggi na dayox man Omar jéem a rek la jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais dund dégg nga njiita leeral askan wa yamu ca na ana Abdou Cili ana Idrissa Seck ana Moustapha Niass déggu leen kon ñu wax ca te seen ay soxla lañu leen lool fay biram penda waa ne juróom benn weeru yàllaa ngi ni lee ñoom daal lenn kese la ñuy wax mooy xarafal nañ junni ak juróomi téeméer mais ci le pays au quotidien ne léppay miti léppay miti wàllu njàng meeg njàngale mi day miti wàllu wér-gu-yaram gi day miti wàllum inondation yaa ngi miti lépp tout laaste ku weddi kon a ma ajab ke moo nekkoon office baan office pour l'emploi des jeunes la waaw mbir ma daal ma nga tara tara tar ba mel ni tiraay ba mel c'est la dèche leen seenug salaire naar tey mais la ñu kon jam baaraamuk tuuma ci yor goo xam ni kon moom la yor nag maanaam kër ga yenn ci ay liggéeykat nee nañu namm nañu Boubacar Bal lool moom mi nga xam ne moo fa nekkoon directeur benn liggéeykat ne ñetti weeru yàllaa ngi nii fayekuñ suñu salaire yi lay i maa la wax li la de dama xamal leen ne Boubacar Ba moom nit mënoon na koo waxal lu ne waaye tardé salaire ñi ko fiy doog a dund ñi nag jàpp Kaameer googee 1999 journalier laa woon dëgg la waaye 2005 ba ma fay génn cadre laa i directeur ba yemu ca ndaxte nee na ci semaine bii di ñëw kon salaire dana wàcc alhamdulilah libération yéene kaay ne daf yëngal lambatu gaa ngi mel ni kon tulleeg male ah waaw parce que maanaam kayit gi nga xam ne moom la Macky Sall di signé ne kii lii lañ gémmiñam gi ay musiba mbaaba kumba kon la cay wax musiba mbaaba kumba ca biir APR réew mi quotidien ne Seynabou Ly Mbacké ah ministre Abdoulaye Wade la woon waaw fal nañu ko président conseil d'administration bu Sonac waa APR nag bañ nañu ba tëdd ca suuf Macky Sall kon dellu na ginnaaw i Seynabou Ly Mbacké Mbàkke bañu ko falee ak léegi toll na ci ñaar fukki fan waaye ndaw sa tàmbaleegul liggéey ba léegi ni lee le pays e au quotidien ne jaay promoteur ba moom daal jaaykatu drogue yu nekk sa gée moom lañuy ñuy wër de te lig Nicolas nag ñi ngi xam leen ne ma nga ca diwaanu Gambie dem na ca lamb ja tribune yéene kay ne Gaston Mbengue day taxawal na diggante Zos ak Tidiane Faye i Tidiane Faye ci suñu lamb ne match nul moom du am ci lamb joojee Max Mbargane ne Zos daal ku ko bëgg a daan ku ne ah di nga entraîné ji di nga am doole te di nga ñeme courage <laughs> cay lii man de ñett yooyee bu ma juumulee matale naa ko waaye guddiñ tol nii war a sàq mi ndawal yàpp ne fi di montey bëñ am na lu ko bàyyi koog alaaji yi ci kër gi waaye ñoom day mënuñu lu dul tëjëg tijji tëjëg tijji tëjëg